nee na mu ngi jàngale rëbb nag mooy lan rëbb nee na wa jarxu muslimin gaañu jullit gaañ jam ko ci li boo xam ne mooy isin bu jàqee la bu jàqee mooy ku ràññee la lu mu jam mooy lan wax si yan njaaxal njaaxal wa in taannasa donte kon sax dafa miin comme rabi kër te ajasa lott na moom jullit ba xan walis ko lott na walis ko illaa bi xam lu mooy ci lu jafe te it nag laa saradin laa naxamin kay subhanallah laa naxamin waxuma julli kër yi de waxuma julli kër woo xam ne sarada dafa dàngaan ah laa naxamin sarada bu dangal aw taradda bi kuwatin wala mu boppe ko boo ca kaw daanu te ko la joge daan ci suuf deng nu ko gagne no bisalahin ci ngàñña bisalahin ci ganna la ko gagne bisalahin salaahin boo muhaddadin bu ñam bu ñaw ñaw la wa hayawanin ndundat ndundat bismillah xollima xam ko bi irsalin ci yebal da xam ne boko ko mu dem te di mu joge ci loxop ba te bila suhóoli tarkin te feñu ne haywan ba bayina ab topatu rawa han ah yaa fi nga xam nga xam moy dagal mu ne walaw taaddada donte kon limu na mos yi duhoo aw akala wala mu lek ci mom haywan ba lam fad aw lam yura wala gise ko gisee ko sax bi xaarit ci ben xumtu way yene ko aw xaydatin wala ben foré gisoo gisoo ra wa sax way ya yebal haywan ba qadda wala qob ya ko yebal aw lam yusan na wala jotul na waxoo xeetam ba yaakaaroo woon ne bi nga ko dàqee la mu jàpp loolu la danga nga yaakaaroon ne leneen la mu lay yaakaaroon ne lay daw kañale mu indi la jaxat te waaye nag ñun mu baaxi tukkee ci yi dagan aw saar wala mu feeñ xilaafu lu moom aw saar xilaafu lu moom waaye nag laa du dagan de لسنه حراما فكي دفع يكار نبدا قنبام حزدة مم لا يكار من دل كجبير دقنت أو أقف ولا مجاب غير مرسل عليه بدل بني يبلون بني يبل مم جاب بني عندي أمان بنين با مانا بني بني يبل وقت بسم الله جاب بني عندي وانت بني بلي أكو مم بقول لهم عندي باخو هاي بقول لك تبغون بقول لك بسم الله dégg nga masal bi aw lam yatahaqqaq wala dëgguluwul al mubiha lay tax mu dagan fi sirkati xayrin ci bokk leneen ak sa los yow mu ne la nga ne ko loolu nu muy demee mu ne kamaa in ni ki ndox yow da nga dóor rab bi bu daanu ki dex gi faatu xamoo dóor bi ko dóoroo ko rey xamoo ndox mee ko rey médd bu ko lekk doo ko lekk moo tax mu ne kon awlam yatahaqqaq al mubiha fi sirkati xayrin kama in aw duriba bi masmuumin wala dañ ko door lu ñu tooke jaasi ji nga door rab bi dafa am tooke xamoo ndax dóor bee ko rey wala tooke ko rey wala gi nga ko jam dafa am tooke médd la aw kal bi majjoos yin xaj bi xaju majjoos la yow sa xaj bi ak xaju majuus bi ñu fadra wi yi ñaar raw den yow wax nga bismillah yebal nga sa xaj bi mais majuus ba la gëmul yalla gëmul dara xajam bi lal na xamo sa xaj bi lo busam la medd la dégg nga wax bi kenn duko lek kenn duko lek gis nga rebb mo gën jëfé ci xadd rebb mo gën jëfé yebiko yebal nga wax bismillah te na koy yini dégg wax bi mm-hmm. te na nga ko yéene mm-hmm. te it nag mm-hmm. na la wóor ni sa xaj bii moo ko jàpp xam nga noo koy xamee bi nga ko bi nga ko yebalee bañul dax nga ko mu dem te yow tamit bul dox ci bul dox ci gannaawam parce que boo yéexee gi fekk mu dee xamoo sa xaj wala wala xaju xaju jàmbur la yëpp yëpp sart la ci te it nag mu ne aw nafsihi wala ak matta moom xaju ba mu dee ما قدر لو حتى نموم بلو قد بي هذا خلاص يمينو كي قتبو قد بي رنديكو قد بي لمو رندي مات بمو بمو دي إيه، يان كو تيم جاب نوكو بلو نخي جلو كي قد بي رنديكو دفو لوكو نتيم كو بايو كو مات كو ديكو فيتي فيتي ديكو فيتي فيتي ديكو دو جسوسي بمو بمو دي تو دوكو لك او نفسه ما قدر على خلاص يمينو دول ميدل دوكو لك بانو بو تبارك الله السلام عليكم ورحمة الله